yogo yogo waa ndeysaan def nañu seeni gàllaaj ñu ngi noonu taxaw Tapha Gueye de à gauche Abou Niasse à droite ñun Tapha Gueye dañ ko daan ñëwal daa bëgg a dox ci maayenam nam maar daa bëgg a dox ci maayenam de Tapha Gueye daa bëgg a dox ci maayenam Tapha Gueye de daa bëgg a dox ci maayenu abu ñaase maar c'est ndeysaan différence de poids bi daa bëri sax. waa as bëri na trop at yi. kon Tapha Gueye mooy mu baatare bëre bi mu gaaw waaye bu yàggee du ci moom. Saal Bawol la mujj Saal Bawol la mujj a bëreel Abou Niassé. waa ndeysaan ku ne ci defet nga mujj wax na dëgg. Abou Niassé lañu jàkkaar lool. Tapha Gueye ñu ngay lewaatoo ñaari droitier abu wàcc na wax na dëgg abu daa wàcc de abu wàccal moo gën a wóor xool xeex la koy andil de xeex la ko bëgg a andil de ko bëgg gis nga mu ngi xeex moom de daw na jël tànk ba coppati na tànk ba coppati na tànk ba door na ko eh Tafa Gueye de la ilaha illallah eh waay l'Espagnol taroobe xa borom balo door baa ngi doomu ndeyu Sadio Mané doomu ndeyu Sadio Mané ak doomu ndeyu Sitta waay waay Fass ak Lamsar waa tànk ba jàllul la mu am ca tànk ba bëri na waaye doole ja waaye l'espagnol waay dafa gay moo gën moo gën a wóor mag du danga am talu dafa gay de bu abu jàppee jàpp bu du baax ci moom xam na loolu non bu ko jàppee jàpp bu moom dina metti ma xam boof ginaar da koy defi cuucam liw du leen laal taw leen laal Lamine yow itam kaw ga laa dëkk Lamine day boof 15 jours doog toj bu tojee day soxor bay bëgg a dee ginaar boo ko jege ñee laali cuucam mu gaañ la mas nga laal cuuci cuuci ginaar waa sàll aw sàll la lay dóor wala mu wokk la sax kay ak weya Lamine Seck ngongu waaye Waly Seck nañ ko nuyu waay. waaye Waly lay nuyu. faramareen bi ñu ngi lay nuyu. baaba eh na ko. door na ko arabu tal eh na ko. waaye lii lan la nii. abu de yàkkamtiwul abu. abu bul yàkkamti de. arbitre baa ngi ree. arbitre baa ngi ree combat bi. eh yàgg maar. arbitre ree combat bi. arbitre baa ree. waaye arbitre baa ngay ree. arbitre baa tex tex may ree. ñépp di ree tex tex may ree dafa gay dee ngi wër moom abon ko toog wax na dëgg da ko war fat lii mooy yoon de te bañ a jéem a xeex ak moom ndax am na foo xam ne bu ko fa yeggee abu day am problème abu ñaasa tey bëreekat ngay bëreel ab tictac ab tacticien dem na équipe nationale ànd ak Yaxya Jóob Yékini ba Niger ba Yékini tas fédération ba Niger mu nga fa. dem na Burkina Faso. laa ilaha illallah El Hadj la ko def talonaat. koo talonné arbitre da koy avertir ah oui. nee nañ ko nga taxaw bëree. avertissement verbal 2. deux bëreel wër bi lañ la ne doy na. abu moom daa wàcc daar. waaw. deux. waa daa a ah, ah, bu sonnee du baax nag Lamine songu ah songu songu la bëgg waaye songu mi naa dem sang sottiwul am nga sànq li mu amun baax na waaye booy bi kii xale la Lamine Abu Ñaase doomu ndeyu Sita Sita ñu ca états di la jaale Fodé sa doomu ndey yal na ko yàlla yërëm Fodé waa Pape Mor Lo bàyyi na bëre Bruce Lee bàyyi na bëre eh mbër yi bàyyi bëre jëf jël bàyyi na bëre. Koña bàyyi na bëre. Wuli de eska. Cheikh bu waala bàyyi na bëre. na yàgg na. Saasu Ndiaye it bàyyi na mu nga Italie. capitaine Kona capitaine Pekam waxaleetuñ ko. Rocky borom MMA ba. Jeylaane nga Suisse. waay mbër yi waay avertissement. te da ngay avertissement. faw nga ta eh xool waa xoolal waa Fass ah déet déet abu bu ko laal bu ko laal abu bàyyi ko bu laal abu waa ah arbitre soufflé na dafa gay de lu mu bëgg noppalu daa bëgg naan de dina naan de lu mu bëgg naan nu ne du naan waaye yàgg combat ngi dafa gay de mi dafa gay de waay xool tarkindaa yi dee déggoo li ma la ko tey de waa Fass day bu ñu bëggee luubal rek des fois ñu jàq dañoo bëri pexe de waaye lii ndax dina yomb luubal xool ko da koo bëgg a nax xool ko xool ko cey deux waay dafa gay abu warta xeex abu kay reewut abu kay fi mu ne talu di ree ba waay talu di moom man ta toog man ta taxaw sëta e waaw e waaw waaye Tafa Gueye dee di bërëy fecc di bërëy fecc eh waay xoolal lii eh waay waay lii neex waay mbaa du lu xew abu ñaas bu doon maay mu ne dinaa jéem a xeex il faut mu jéem a xeex. mooy yoon waaye ak nii rek du sotti te combat bi bu jeexee ci nii même buñ ko joxee ndam itam du luy neex ci moom xalaat naa ko xool ko xool ko ew waay moo saf xorom ew waay waay lii neex na ni ew song waay bii combat waay di bërëy feej ew eh, waay ew eh, abu mbaa xoolal coow li tarkindaa yi trois dem na waaw kese ñu tag ko 15 pour cent mais combat bee ko ko jaral nag waay xoolal lii waay yàgg e yàgg maar e waay xool ko public ba e waay e maar ma fii yow abu wàcc na abu wàcc na wallaay Père Max xool ko mu ngi wër-wër moom de ñu ngay wax de ñu ngay bëree wax de dafa ngi wax ak moom de nee na ko kaay fii da koo bëgg a nax billaay nax ko lay wër li muy def tànk yi la bëgg a nax daa bëgg sengoor yaa ngay daanu. abu mbaa daa bëgg abu moyul de wata bombe asa loo asa bombe cey Lamine Seck ah xanaa teneng kepp nag asa loo de lu neex rek la waay waay ji lamb waay lay njaay sa lamb ji ma fee am xool tarkindaa yi xool tarkindaa yi xool jëlal yow atte papaay tarkindaa yi moos nga koy sotti butéel nee du daanu tey Tafa Gueye 2 tey day ñëpp a koy tàccu tey Giré ngay wax ak moom yàgg maar ngay wax ak moom Giré ngay wax moom de arbitre bi xëcc na ko lii kay tay la ma sa ba lamb dee lamb ba tay tay waaru man Tapha Gueye bu cinq yi matee mu ñàkk Tapha Gueye benn avertissement la dese lamb ji xalaat na koy jeexal. bëreeg sa moo tax. mu baax bëreeg ku dul wóorul li mooy risque yi. da wane. li mooy risque yi. saa ne waru leen di jël. imaginer tafaage yi tëdd wóorul xoolal xoolal. imaginer tafaage yi tëdd waaw bu ko ah ah moom kay lim ko mën a yàqal bëri na. moo tax daal bëreeg dara newu ci. ni yow. waaw parce que abu tay abu daa mas ta abu xamul lii di. abu tay li mu gis koo yéem. Lamine boo waaroo da keef. amul li mu gis a ko waar tey daa yéemu koo xam ne yaa ko sut ko gën koo doon gune ngeen ne cib géew mu lay wërwërloo déggoo li ma la wax moom day dem fiiri onze ca aw saya lu ko neex lay jën xam nga dee moom du ko yàq abu ne na ko taxawal abu déet abu loolu wóorut non bërewul bëre woo ne Tafa Gueye Tafa Gueye lii du bëre waay Tafa Gueye bëreel da ngay ñàkk combat bi jee na combat bi jee komba combat bi jee na combat bi jee na combat bi jee na de combat bi jee na Tafa Gueye lu mu bëgg noppalu daa bëgg a naan de dina naan de lu mu naan nu ne du naan waa yàgg combat ngi Tapha Gueye 2 mi Tapha xool tarkindaa yi eh, dee déggoo li ma la yaakaaruma ko tey de waa Fass day bu ñu luubal rek des fois ñu jax dañoo de waaye lii ndax dina yomb luubal xool ko da koo bëgg a nax xool ko xool ko cey deux waay deux waay dafa gay deux abu warta xeex abu kay reewut abu kay fi mu ne talu di ree ba waay talu di moom manta toog manta taxaw Siteu e eh waay waaw e waaw waay Tapha Gueye de di bërëy fecc di bërëy fecc e waay xoolal lii e waay waay neex waay mbaa du tarkindaa lu xew amu ñaas bu doon maay mu ne jéem a xeex il faut mu jéem a xeex mooy yoon waaye ak nii rek du sotti te combat bi bu jeexee ci nii même buñ ko joxee ndam itam du luy neex ci moom xalaat naa ko xool ko xool ko eew eh, waay moo saf xorom eew eh, waay waay lii neex na eew eh, waay song waay bii combat waay di feej eew waay ewaay abu mbaa doo abu bul xoolal coow li xoolal coow tarkindaa yi trois dem waaw kese ñu tag eh waay xoolal lii waay yàgg eh, eh public ba eh waay maar eh, ma fi yow. abu wàcc na abu wàcc na wallaay xool ko mu ngi wër-wër loog moom de ñu ngay wax de ñu ngay bëree wax de dafa ngi wax ak moom de nee ko kaay fii da koo bëgg a nax bilaay nax ko lay wër. li muy def tànk yi la bëgg nax daa bëgg sengoor yaa ngay daanu abu mbaat daa bëgg a jéngu moyul de wata bombe asa loo ne bombe cey lamin sek ah xanaa teneng kepp nag asa loo de lu neex rek waay waay ji lamb waay Lay Ndiaye sa lamb ji ma su am xool tarkindaa yi xool tarkindaa yi sa ngay atte papaay tarkindaa yi moos général a koy sotti butéel nee na du daanu tey Tafa Gueye de tey day ñëpp a ngi koy tàccu tey giree ngay wax ak moom maar giree ngay wax moom de arbitre bi xëcc na ko lii kay tay la ma sa am ba làmb ba tay tay laa waaru man Tapha bu cinq yi ma mu ñàkk Tapha Gueye de benn avertissement la dese lamb ji xalaat na avertissement koy jeexal. bëreeg sa morom moo tax. mu baax bëreeg ku dul sa morom. wóorul lii mooy risque yi da lay wane. lii mooy risque yi. saa ne Tapha Gueye yi gune waru leen di jël. imaginer Tapha Gueye dëgg wóorul xoolal xoolal. imaginer Tapha Gueye dëgg waaw bu ko ah, ah, ah moom kay lim ko mën a yàqal bëri na. moo tax daal bëreeg xale dara newu ci. ni yow waaw parce que abu tey abu daa mas ta gis abu xamul lii di abu tay li mu gisa a ko yéem lamin boo waaroo da keef abu li mu gisa ko waar tey daa yéemu koo xam ne yaa sut ko gën koo doon gune ngeen ne cib géew mu lay wër-wër loo déggoo li ma wax moom day dem fiiri onze ca aw lu ko neex lay jënd xam nga dee moom du ko yàq abu ne na ko taxawal abu déet abu loolu wóorut non bërewul bëre woon na Tafa Gueye 2 Tafa Gueye lii du bëre waay Tafa Gueye bëreel da ngay bi jee bi jee na combat bi na combat bi jee na combat bi jee na de combat bi jee na combat bi jéem a maar ah abu tëdd na. combat bi jéem a dinañu xeex xool per max déet dinañu xeex arrière maar dinañu xeex dinañu xeex de dinañu xeex de tarkindaa yeeg waa Fass. gars yi taal lacrymogène yi fii rek. wallaahi lasim te lacrymogène yi baaxul. ooy waay bu leen tax lacrymogène yi tàkk. cey deux. kaay kaay. kaay. mu def nii. waa Tafa Gueye waa l'espagnol yow. espagnol laa demee. loo def nii li nga def nu mu tudd l'espagnol. moom moo waroon dem jàpp ko daan ko. mais est-ce que kii bëre na. bu tabaay ngay jël di ko sol. waaw indi mbooloo. est-ce que lii lan doon xaar si li nga noo xaar si moom. comme que mu toll nii. boo rafetee traité jàpp ko bëggul yomb moo tax mu jël mais dama koy bëri loolu yomb ko ànd si. mais lu tax bëre woo lu tax bëre woo. man maa war a bëre wala man maa war a bëre. est-ce que bëre nga maa war a bëre wala man maa war a bëre. ma ne. parce que avance lañ leen jox. yaa ko indi est-ce que Tapha Gueye de li mu def nii yoonu bëre la. mais Abou Diassé ma waroon jël responsable dam dam koc combat dañ koy koc. waaw mais mu ngi koy mu ngi koy topp. mais de est-ce que bëre na. topp bépp da koy sóoraale. topp yëpp sóoraale dafa ak tam dafa coin boo xam ne Abdou Diagne mënoon na ko fa tëj mais ko sóoraale moo tax deux amul lu muy prouvé si lamb moom moo amul lu mu prouvé deux yoonam nekku ci la war a bëree bu lu mu war a bëree la ah. lii mooy bëre bi non mooy bëre bi xale bu mag la moom moo ko soxla xale bu mag la Abdou la moo war a